السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu mbokk bi subhanahu wa taala mu tamit tawfiq defal Amna ko xam naa vidéo xam ne moom lañ teg sunu baaraam dañ ciy commenté sa du bari bamba te ki wax lii du sénégalais ba nga ni ah bëgg faral ki wax lii du julit ba nga ni daa bëgg faral sëñ tuba waaye dafa gëstu ba seet ni afrique gépp ki leen mën a boot te attan leen te mën leen a yóbbu sëñ la hmm. donc du problème ay doonu murit waaye li mu andi woon lun mën a jariño la hmm. ya boobu yee yan donc man yaakaar naa ni loolu daal lu ma ñor la loo xam ni bëggoon naa jeunesse bi comprendre ko bëgg aussi suñu autorités yi comprendre ko mm-hmm. si euh, bi sëñ tubaa indi ñun ñëpp mën nañ cee jariñ mm-hmm. kenn ku ci nekk la nga nekkit nga téye ko fonk ko mën nañu wax ne mooy énième vidéo propagande waa yoon wi seen propagande ni ñu koy defee lu yomb la mooy day jël sëñ bi mettre ko en avant jëm ko yëkkati ci ay lu luñ ko mënee ak fu ñu mënti jaaree pour yëkkati ko ay dayoo ci première analyse su fekkee dangay ngay gaawtu mën ngaa tabbi ci benn pej fam ne man mi dama ciy tabbi daan nit ñi dañoo xër ci sëñ bi dañoo bëgg sëñ bi loolu mën permettre ba ku ñëw sax propagande boobu di ko dal lan lay delloo rek mooy da ngaa bañ sëñ bi waaye soo settantalee bu baax da ngay gis ne ñoom moo fekk li ñuy def ni nekkul bëgg sëñ bee tax ñu koy def waaye bëgg seen bopp la ndax seen i njariñ yi kese moo ci nekk daraay njariñu sëriñ bi nekku ci ndax mbir yi propagande yu mel ni moo de permettre ñoom ñu mën a continuer exister ñoom ñu mën a continuer di dund ci ci nit ñi ko koy def nag mën naa doon ak taalibe boo xam ne moom mbir ma mi ngi ci am njëriñ baax ndaxte li koy jox jëmm jox jox ko kàddu mooy mbir maa tax donte taalibe la ci mën naa doon ab taalibe boo xam ne dañ ko ndax mu continuer di propagande ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ndax mais la ko li propagande bi ci li muy basé wu amul lu muy jëriñ sëñ bi ndaxte ci àdduna sëñ bi amatu fi dara faatu na kon liñ koy oto yu neex yeeg kër yu rafet yeeg ñoom ñoo ciy dëkk sëñ bi du ci dëkk nit ñi jël seen alal di leen ko jox joxuñu ko sëñ bi ñoom lañ koy jox ñoom ñoo koy lekk ñoom ñoo ci takk seeni soxna lekk lekk ci ba suur lekk seen i ginaar tëdd nelaw sëñ bi amu ci dara liñ koy waxal nii tamit mënu koo jariñ yowmal qiyaam la ko mën a jariñ rek mooy la mu jëfal boromam kon nga gis ne propagande yi ñu jëlëb jël sëñ bi di ko sacrifier sacrifier maanaam teg ko en avant du amulul njëriñ sëñ bi danaan yàlla li mu defar sëñ bi fekk ñoom la ko defal ñoom ci boppam ñoom la yàlla fekk yàlla ñoom la ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ciy jëriñu mais sëñ bi moom lan la ciy jëriñu lan du àdduna du du soxna suñ ko ci jox du kër gum ci am ay këram ak la mu yoroon ay doom doon nañ ko ay sëtam ay seeni sët doon na ko du du du du du du compte bancaire bu ci ibbil moom faatu na du tamit luñ koy ay tuyaab yu ko def ko ci ci compte am mais ñoom da leen di permettre sëñ bi mooy leen permettre ñoom ñu exister kon nekkul bëgg sëñ bee tax ñuy wax yu mel nii waaye bëgg seen bopp la pour ñoom avancer seen bopp la le propagande yomb na moy fep fu nu mën a rek lo xam wax la jo xam da fay tax ñom ñu mëna a continuer exister mais jaare ko ci sëñ bi dañ koy def xam ne Sénégalais yi ñu ci ëpp dañoo complexé dañoo complexé de mooy Sénégal li ñu complexe ba bari fa complexe diplôme dafa complexé quelqu'un de l'extérieur rawat na mun na nekk tubaab na fi sax nit ku ñu leen dural mais eh, awa Afrique jël nañ ko jox ko lepp mu ñëw wax nangam mais après mun na il peut être le plus sot du monde peut être le plus peut être un cancre ça venait dire ça <laughs> la muy wax ñu dañoo am xel dañ koy jël xalaat ko teg ko ci le des parce que li muy wax ni mën nañ ko mesurer sur des faits jàngale boo xam ne développé ab ab gox développé ab ville nag nga mën a ñëwee nit ñi dañ koy jox ab continent xanaa kay balaa ngaa balaa ngaa natt ab jàngale. déjà nga doon koy jël yóbbu ko ci ab continent pour ñu jàngale boobu mu jëlee mu mu jëmalee continent bi kanam nga am sa expérience jàngale boobu daal di développé ab kër rek wala boog jëmale ab kër kanam ko xam ne jëmalul ab kër kanam lu dul ci manière boo xam ne c'est d'une manière tordue d'une ndax nit ñi leneen jëmalee kanam comment ñu ko jot di ko teg ci li xam ne mooy un continent mais balaa ñoo ñëw ci ci fond wax ji toll na doy rek jullit bi <coughs> mbir yu mel nii ñu ko ci bañ a ndax muy delluwaat ci alquran delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala ba mu tuddalee ñoom ne banu israil tuddal leen seen i mag mbir yu baax yi ñu def seen mag day yërënt xam na nit mënut a jëfal yàlla lu féeti kaw nit mënta indi yoon bu nit ñi war a jaar bu leen di jubal defal leen si àdduna ak laaxira luy féete kaw yonent yi waaye la sontaale ba mu leen tuddalee ñooñu pare da leen cee tekkal ne ne tilka ummatun qad xalat xam ne nii ay nit lañ ay mag lañ ay peuple ay xeet yoo xam ne jàll nañ laha ma kasabat la ñuy def seen bopp lañ ko defal wala kum ma kasabtum loolu lañ koy déggee mooy ne yéen liy defar tey Afrique defar Sénégal ñun ñoo koy foog ñun ñoo koy ñun ñoo koy ñoo koy def ñun ñoo koy liggéey ba nekk ci ay mythe <laughs> ba nekk ci ay ay ay symbole ba nekk jël ay ay ay mbir yoo xam ne on sait déjà que c'est faux jëmalu nit ñi fenn mettre quoi en avant bal soo xoolee sax bokkoon nañu delloo li ñu tax ñu delloo ginnaaw nga jël ko daal di koy mettre mettre sa nga jël ko daal di koy bëgg a mettre en avant tilka ummatun qad xalat sëñ bi la mu def mook mag ñi jiitu mag ñi lañ def def nañ ko dem nañ seen yoon wéy nañ leerof naan seen seen wàllu wéy na walakum ma kasabtum yéen nag yéen ñi des yéen nag yéen ay la ngeen def yéen a koy fàggu nekk yi foofu la war a taxaw su taxawee foofu noonu mbir yu mel nii sëñ bi def na nangam sëñ bi ñun jëlee jàngaleem dañ koy daf ñuy jëmale kanam tu verras que c'est du la amal benn benn njëriñ amuloo njëriñ xam mooy sëñ bi su fekkee nag ñoo leen ci fond wax ji kon bi dañ koy delluwaat ci sëñ bi ndax ñoom sëñ bi lañ jël sacrifié ko mettre ko en avant donc foog ñu delloo su bëggee jàngat wàcc foog ñu ki sëñ bi. mooy su fekkee ne sëñ bi indi na modèle bu bees boo xam ne dafa ñëw ne modèle la boo xam ne bu bees tàkk boo xam ne dafa ñëw pour jaarale ci nit ñi mën nañoo dogu tey d'une manière solennelle ne noonu sëñ bi il a échoué ne modèle am boobu noonu modèle bu réussirul la. lu ko waral su fekkee ne sëñ bi dafa ñëw pour jàngale jikko yu rafet defar nit ñi ba seen i jikko rafet dëkk ba nga xam ne fa la dëkk dëkk ba nga xam ne fa la dëkk juddoo fa yaroo fa ba am fay taalibi ñu ñu war a topp ay jàngaleem te di ko topp di ko jàng nag su ñu jël moitié ne peut-être ay taalibeem ñooy moitié Sénégalais yi wala bokk moitié bokk ne ne serait-ce un tiers su fekkee ne un tiers nag ëpp nañ ko sax war nañ koo ëpp ah dañuy font beaucoup de bruit kon dañoo war a Sénégal am na benn modèle boo xam ne dañ leen jàngal ay jikko yu rafet yoo xam ne Sénégal fu mu fu su fekkoon ñi des ñëpp dañoo bon sax foofu rek mu war a ràññeeku ko ci ay jikko mais da gis ne su fekkee ni jikko yu rafet il a complètement échoué Sénégal mooy dëkk bi gën a boni jikko ci dëkk yi àdduna bi ab dëkk bu nu ko raw ndax dëkk bu ko raw moom da ngay da ngay da Sénégal mooy dëkk bi da nit ñi dàq fen ñëppay fen Sénégal mooy dëkk bi nit ñi gën a naafeq Sénégal mooy dëkk bi nit ñi gën a iñaan moo tax sëriñ si ngebarkat yi bari Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne amuñu gën a ñàkk confiance en soi gëmuñu seen bopp moo tax ñu mën a sëriñ su mën a ku mën a mën a mën a lu ñuy mënti def moom ngay gis koo xam ne dafay entraîné wu at di rey boppam di teg boppam lu diis su ñëwee daan jàpp ne moom moo daan sax fekk daa bëri ji daa jàpp ne sëriñam moo ko daaneel dangay gis ku jàng ba sonn jàpp ne bés mu réussir sëriñ la kon jikko yu rafet yoo jël rek Sénégal ñooy dëkk bi gën a tappet yi dëkk dëkk yi ñoo gën a ragal soo ne xuux mu daw ba ba ani jikko yu rafet yi Sénégal jikko yi bon moo desaaroo

amul réussit donc loolu soo ko bëggee dem jaay ko américain yi la ah jaay ko loolu leen di jaay lan su fekkee da nga may wax ne c'est un modèle économique mais modèle boobu fan la ko expérimenté il a échoué parce que modèle bi su fekkee ne modèle bi su fekkoon ne sax da ne Sénégal jëluñu ko mais au moins Touba jël nañ ko sa ville ay doomam ñoo xam ne moo leen. ay doom ñoko doon ñoo moo leen jàngale ay talibem mais Touba c'est une ville très pauvre amul Sénégal la ñuy taxaw naan jël dëkku mel Touba nga ko tudd une ville ville bo xamné ça même pas dit amul amul industrie amul ya quoi Touba. ana modèle économie boobu noonu par contre modèle économie bi nga xamné sax mom le murid di ja moko moo mais en tout cas mom le murid di waree. mooy modèle économique bi gën a bon ci modèle économique mooy l' exploitation de l'homme par l'homme da ngay fekk ay nit ñoo xam ne ay nit ñu am seen doole war a liggéey seen dëkk nga jël jël leen def leen ni bëkk nekk duñ jëriñ société bi duñ jëriñ kenn yow la kenn jëriñ wala jël ay nit fekk leen ñu ñu toll seen digg ndaw nga jël leen leen bayloo ay tool doo leen fay dërëm ay nitam may jël seen xaalis dañuy dem liggéey yi ba ñëw jël seen xaalis ñëw jox ko ay nit jox leen ko boole ci li nga xam ne sax mooy albert ne su neexee taalal ñu ciy tabax ay lan ay bammel ay jàkk yoom dañ koy orne ak i or loolu mooy modèle économique mais si lan fan modèle économique boobu noonu au moins fekkoon ne c'est modèle économique boo xam ne dafa rare au moins dañu gis benn prémisse sax fekkee sax benn ville bu ndaw la développé wala benn sax gox bu ndaw mais c'est le contraire bi bi xam ne moom la ñu ko représenté tey tey di di ñu woon en plus on pas t'aime pourquoi même les hommes politiques le modèle économique modèle économique un du du bu tout modèle économique dara ñu ñu kan inventé <laughs> eh, eh, si dëkk bu dañuy sax dëkk du ci ça permet blanchissement de l'argent kala permettre ñu blanchir argent Sénégal ki addiye yi nga xam ne moom la sëriñ si di ay nit ko xam ne addi xaalis bu weex tal ay million def ko sax jox ko état du ci am dara mun na ne xaalis bu na jógee fu nekk c'est ça y fii nii fini leen ne modèle économie ban modèle économie moom la ñu war a soo doon demoon Afrique tey ji di leen ju bëgg ne d'accord ñu dañoo bëgg a topp sëñ bi loo leen di présenter quoi da hein, il faut il faut travailler mais il faut travailler tout le monde sait qu'il faut travailler kan moo xamul loolu loolu ko ko inventé mais aw est le modèle économique soo jëlee ci Sénégal li ñuy àtte mais tu verras que mag ils ont lamentablement échoué ils ont même pas pu Sénégal ni mu avec ay seen ñoom mag ñi mag ñi mu bàyyiwuñu fi sax dëkk boo xam ne dañuy àtte woo toq charia nga ils ont réussi wala boog seen modèle su leen toppee en quoi illusion la ñuy dund nañ comparé rek lañ comparé donte ñu ko comparé ndaxte li nga xam ne moom mooy arab naan jaas yi su fekkee da nga naan dafa moo gën a ñaw li nga xam ne mooy bant <coughs> yaa ngi wàccee li nga xam ne mooy de ja jaas yi waaye damay jox exemple rek Mouhamed Al Wahab mi ngi wax ne laa réussi waaw d' accord nga ak la mu doon wax wala d' accord waaye moom la mu bëggoon moom réussir na ko bàyyi na ci dëkkam ñu àttewoo sharia <laughs> d'accord ngaak d'accorduk moom la ma bàyyi na ci dëkkam ñu am mu am système boo xam ne mën nañ ko si ñoom seen gisin boo xam ne mën nañ ko so yi ba ngeen ko tuddee ko tour nga xam ne lii la ñuy doxal kooku il a su bëggoon a jaay modèle mën na jaay modèle am naan lii mooy modèle bi mu yor bi nga xam ne fekkoon moo ko indi da naan modèle bii nii moom indi na ko bii nii la ko bëgg a dëkkam ña ngi koy appliquer la mu bëggoon mooy woote ci tawxiid xeex lépp luy bidaa jël li nga xam ne mooy nguur ga mu nekk ci loo xam ne ci sharia sénégalais yi atte woo jëkkati drapeau laa ilaha illa allah jëlu ko jox ko ay bàyyi fa jugee fa ay lay toog fa jugee fa ay xubur yu ñoom na xeexeet ñëpp amul kenn ku mu mu jugee fa ñëw toog fa nekk njiit jiite jiite dëkkam léegi mun nga d'accord ca la muy def ak lan du def loolu beneen débat la mais c'est un exemple benn modèle boo xam ne c'est un modèle qui a réussi donc modèle boobu su fekkee ab salaf yi may wax li mu jàpp mooy modèle moom modèle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwal Sénégal sëriñ si mais qu'est-ce qu'ils ont laissé fan lan lañu bàyyi laïcité lañu fi bàyyi ils ont donc ils ont échoué su fekkee ne charia lañu bëggoon indi ils ont échoué wala boog bëgguñoo nag fan ci ban domaine ngay jël ñu ne sëñ bi fii nii waaw réussir na ko Sénégal on le voit ñu ne sëñ bi ah, grâce à sëñ bi Sénégal am na ko il se distingue des autres pays du ci benn domaine donc wax ju bari moo fekk lammiñ bu rëy ba nit ñëpp ñu di ko wax indi doo ci dégg na ku la naan modèle naan la modèle économique ba mu ñu woon indi la nelal nii mooy modèle économique c'est di gis naa ñu ci benn ay ay ay buxoos ay mais dara duñ ko indi dara loo xam ne kii teg loxo nga gis ko ne lii nii benn modèle lu bees boo xam ne suñ jaaree ci modèle bi nii dañ ko réussir maa ngi déggoon ay opposition di ko wax ay opposant dégguñu dara c'est des c'est des populistes c'est la démagogie demal seeni programme ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp nga fekk dañ ko fekk benn modèle ñu ne la modèle économie bii nii dañ ko dañ ko bëgg appliquer ba sëñ bi ko indi te ñoom dañ koy wax ah <laughs>

ndax nit ñi dong la ku ko munti wax na ko uni dajaloo wax ko yi diis de bêtise y a pas de modèle boo xam ne indil nañu ko ñaan mag ñeeg koo ci mën indi bu indi benn modèle boo xam ne mën nañu cee base bu réussir au contraire su fekkee ne li leen di askane la ñoom ñoo ko def ñoom lañu indi quatre vingt pour cent moo tax tey Sénégal numbeelu dañoo indil ay nit ñoo xam ne c'est des personnes oisives ils ne travaillent pas ils vivent aux dépens des autres loolu lañu ñu indil ay nit ñu toog seen chaise dina toog muy dox loolu la ñu indil ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp ne lépp dina lañ koy lijjanti ci baatin duñ liggéey ci dara ay nit ñoo xam ne dañuy fen suba ko su suba ba ba ba guddi cinq ci la ñuy dëkk dañuy taxaw fii di di wax loo xam ne de ñoom ñooy indi ñi ñoo xam dañuy taxaw Sénégal Casamance di guerre ñu ko lijjanti ñu taxaw ne ñoom ñoo arrêté guerre mondiale wu euh, guerre mondiale ba. ñom ñoo ñom ñoo wasifa xaw ñom ñoo def ba mu am léegi je je mets tout dans le même sac lii rek côtoise yoon bi kese ay yoy la ñu andil ñoo xamné ne ils debout dañuy gëm gëmloo mbir yo xamné ça ñu permet même pas d'avancer c'est-à-dire li ñu indil ñom moy des choses en fait qui nous permet ki wala boog ki ñu les gens qui nous permettent, nous, en fait, au fond de nous, nous, nous dans, dans, l'échec, mais on se réjouit, on est content, en fait. des idiots heureux de cet échec. Sénégal, Sénégal moo date une ci d'équilibre, mais Sénégal est dans le Sénégal les fermes.

pale la la fi de et ça nous permet pas d'avancer donc c'est des bêtises ñu ko bàyyi su que bëgg seen avancer ñu bàyyi seen bêtises ñu bàyyi seen sottise yi na que ab dëkk bo tu ngay xeex pour ñu criminaliser ngor jigen ba pare tu góoriru fii naan mag ngi nañ fi mag ngi fi mag ñi lañ fi bàyyi kon ba ñu deewee le rire. la que nañ fi dara bañ déwé lañ ko ñak bu yag y a pas de modèle y a rien et ça veux bëggoon dem Afrique yóbbu Afrique pour ñu vendre un modèle voilà donc maintenant joxe nañu modèle bi nga xam ne mosu ñu bàyyi ngeen ngeen expliqué ko woon des exemples des expériences qui sont concrètes lan lan lay woon Touba lan lay woon Sénégal loolu lay woon dara c'est c'est ça c'est rien du tout dañu bàyyi caaxaan bàyyi tappale dellu ci yàlla ku bi jébbalu ci moom xam ne Sénégal lu koy defar ci yàlla lay jógee ak tamit ci nga xam ne ñooy ses fils ñi ñi fa nekk léegi jéem a def dara bañ a dëkk ci ay ay illusion ak ni ndax nit ñi lii c'est juste pour ñu vendre euh, des personnes euh, pour intérêt ñi nga xam ne ñooñu koy vendre pas même pour intérêt ñi nga xam ne ñoom la ñuy ñoom la ñuy vendre asalaamaaleykum wa rahmatullah